banque timis nañu andi fii Sénégal mu dem ci benn hôtel de woo ay journaux yi wax la muy wax ba pare porté ñu plainte Frank Timis la mu wax ci journaux yi bare na mais ñun gis nañ ci lenn loo xam ne ne lu doy waar ñun fii Sénégal nee nañu wax dañ koy wot ñun dañoo gëm yar ak teggin sooy wax ak kilifa da ngay xam nag ngay wax moom ñu ngi wax ak premier ministre yi parce que am na ay ancien premier ministre yu nekk fii ci manko wattu Sénégal am na ay président de l'Assemblée nationale ay président du Sénat yu fi newoon ñu ngi fii ci biir manko wattu Sénégal mi ngi wax ak ay ministre mi ngi wax ak ay député mi ngi wax ak ay conseillers municipaux dégg ngeen la mu wax liir ngeen la mu wax ay wax yu ñagas lay wax ñun gëmu ne ne ñoon fii ci République Sénégal ak suñu démocratie ak suñu liberté fu mu toll nit ku mel noonu gouvernement bi mën na koo yëkkati jàppale ko ne damay xeex say demal xeexal ma sama opposition loolu gàcc la ci ñoom ñoom ñuy tuddee seen bopp ay républicain ñaareel bi la mu wane ci biir journaux yi mooy lu premier ministre bi nëbb premier ministre bi nee na moom moo xam pétrole ak gaz fii ci Sénégal que ñun ñi xamuñu dara suñu buggee sax mën nañu wutal stage ñu dem Petrosen ñu jàngal mais Franck Timis ba mu ñëwee leeral na mbir bi nee na moom Franck Timis moom moo jënd gaa day jaa day jaawale Petro Asia ak Petro Tim parce que Petro Tim dañoo bare am na Petro Tim Sénégal am na Petro Tim Limited am na Petro Asia Resources am na Petro Asia yooyu yëpp ñoom ñoo ko defar noonu mu nekk genre Pupérus ñu jaxase leen pour réeral sénégalais nee na moom jënd na Petro Tim moom jënd na Petro Asia nee na million millions de dollars la ko jëndee na mu ko jëndee sax leerul ci journaux yi. benn bi dina man 2 millions 5 millions 2,5 millions de dollars laa joxe beneen bi mu ne 3,4 millions de dollars laa joxe joxewu ma ko sax cash daf ma yore loon xaalis ah bor boobu la la ma fay. de toute façon nee na fay na ko premier ministre waxul loolu nëbboon na ko muy benn ñaareel bi na moom warul fay impôt ci loolu parce que société yooyu du société Sénégal ñu ngi ci île ñu ngi ay société offshore nañu. ñu ne ko ah donc yéen effectivement da ngeen defar seen société offshore yooyu pour mën a daw impôt Sénégal muy lu gaaw lu doy waar fii ci Sénégal ñaareel bi ñoom si seen bopp xam nañ ne mais Kayar fii si Sénégal la nekk Saint-Louis mi ngi ci Sénégal loolu mooy actif yi loolu la ñu moom. kon nag xaalis bu ñu bu ñu fay loolu war nañ cee fay impôt parce que fii ci Sénégal nañu nekk te Petrotim Sénégal bu Aliou Sall créé kooku Sénégal nañ ko créé société de droit sénégalais kon nag mënu ñoo daw suñu impôt yi loolu premier ministre bi wax ko moom tamit nee na muy fëgg dënnam bu mu leen jaaxal ne ay 15000 milliards lay investir yooyu aw waxu picc la loolu pour impressionner sénégalais pour wane ne moom am na xaalis mais premier ministre ñu ñëpp xam. mooy Cosmos Energy moo génnee deux cent quarante millions deux cent cinquante millions de dollars pour def pour euh, kii nu mu tudda ci découvrir gaz bi lu ñuy wax sismique 3D ak ñaari teen gaa yu gudd la ñuy doon yooyu la def foofu ba ñu gis ne am na quatre cent cinquante milliards de mètres cubes de gaz kenn mësul wax ne am na kenn ku ci dugal xaalisam loolu premier ministre wax di wane ne rek ne la mu wax noonu gaa wax ji ñagas na mais am na information yoo xam ne ni jox nañu ko mu ngi dëgëral kàddu front pour la défense du Sénégal maa ngi ko watu Sénégal loolu moo tax ñu ne ko ñun du ñu jaaxal du ñu tiital du ñu xoxatal yoon bu ñu tracé conférence des bi taxaw wax ko yoon boobu la ñu jëm